saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat ba waroon a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou te ñu dippe woon ko combat royal bile combat ku yëgul ne dootul am ren da xaar ku la ko déy bile combat ñu ngi ko jàppoon le 26 juillet 2020 bu doon saison bi jaar na ci yoon dox na ni mu war a doxe waaye ni saison bii mujjee demee njortu nañ ne bile combat dootu fi amee depuis ñu ko taxawal ba léegi combat baa nga ca guta situation bu ñëw ba combat ñu taxawalee le 26 juillet 2020 ca la ñu arrêté promoteur ko Nicolas ne ko fi combat bi duñ ko bàyyi muy nax saay noonee la def indi ay pexe ngir sauver combat ba covid 19 daa di yegsi ba coronavirus yegsee la tas jàng yow yekki base ba ranger les sièges yemul ci combat royal waaye mbooleem combat bu mu fi fekkoon mu taxaw dàq na la ba jëmmi jamono journal ba xam le ne bile combat moom njort nañ ne dootul amati Modou may roi des arènes jotagul avance Ama Baldé moom contrat am juillet boobee combat mbooleem amateur mbooleem VIP bu ci jàppoon ne da nga bëre ren corona yàq na ko tafaatin la géant di bawol ne man sax ba corona ñëweeg léegi damaa génnatul sama kër bu dee Balla Gaye 2 mu nga ca golf ak ay sensibilisation ñaax nit ñi ñu mooy tooka ñaan buur bi yàlla la dëkke Boy ñaa 2 mu nga kër famem la bëtu Lac de Guiers 2 mu nga ca cité des enseignants bu Géejawaay Eumeu Sène borom taay si nga mu ngay baagante diggante mbaaw ak Lac Rose Bombardier B52 ay message am arbitre ba yónnee ab tontoom ci sunu lamb joxal ko ko Kati Diop mooy Wenceslas moom Kati Diop ba mu génnee dafa xam ne xaalisu recours yi CNG jëlu ko waaye arbitre koy lekkal seen bopp mbooleem xaalis bu ñëw ci recours yi arbitre yi ñoo ko jël dugal ko seen gafaka loolee ba ko waa CCA déggee dañoo mer ba futt ku ne bëgg a tontu Wenceslas ne leen toog leen noppi leen bàyyi leen mag moom bu dee Amadou Kati Diop daa xamul li xew day jàppale CNG wala daa xamul texte yi nañu wax bu dee day làmbatu wala day laajte nañu wax képp ku nekk ci làmb ji xam nga ne xaalisu recours yi ca CNG la jëm bu dee ci lit sans frappe table technique koy déposé ku ma wee dina dem vérifier Amadou Kadi Diop bu dee jàngoro ji da koo tiital wala xel mi dafee nekkut nañu wax keneen ko wax ci arbitre mooy Malick ñi ngi njiital arels moom la moo xam mooy intérêt lamb ji moo ñu juboo li intérêt lamb ji mooy CNG ak arbitre yi joxante loxo moom Malick ñi ngi la moo xam mooy ñun waa association arels bind nañ suñu lettre jébbal ko CNG ngir mu gracier arbitre ya lamb ji fi mu toll soxla wu ñu xiiroog ŋaayoo nanu booloo